nous avons les associations les organisations de femmes Nous ngi waxtaan ak nous barke la Samsam 1 2 3 portez-vous candidature pour ma candidature pour tête de liste fii si Diamaguène la COJER de Diamaguène Sicap le président de la République ki ko jiital Ibrahima Touré ànd ak ay ñoñam ànd ak la jeunesse bi nga xamante ne fii ci Diambour Sicap Mbao la ñu yeewoo te defuñu woon politique ñu woon si politique waaye ñu xool ñu xam ne ne que sama candidature wala sama vision war na mën a liggéey suñu commune war na mën a jàppale suñu commune ñu ne dañuy ànd ak yow ñu liggéey ak yow commune bi ba ñu jël euh, euh, la la commune de Diamaguène sikambao donc je ngi leen ci en tant que jeune ci action bi vous def tey di leen wax en tant que yaay dama nekk seen yaay en tant que Kat d'abord waaye en tant que femme qui liggéey dans le développement mais di jàppale les jeunes ndaxte nak ku jàppale tay jeunes jàppale ngeen kii war a yor réew mi ëllëg moo tax